ti moom sëriñ fàllu la maanaa dafa doon baax si biiru maamam ba mu taalee daay ga ca curuñeen kenn ngi mu koo fay maanaa daa am way de maanaa juróom-ñaari maamam yi juróom-ñaari maamam yi laa wax de juróom-ñaari maam yi maanaa ñas ay buur lan bari nañu fi xëbër xëbër yi maam yi maanaa ñas xamante naak maam yi ñooñee maanaa li mu doon da koo donn sëriñ Basiiru moom sëriñ Falloo ko leewu ci loxooy boppam yee tudd ko boppam moo tax mu mel nii mu mel moo ko tudd moo tudd sëriñ Maara ca loxooy boppam ya moo tax ñu naan ko Maara Ñas Bas Ñas tudd ko sëriñ Basiiru moom sëriñ Fallu jàmbaar yi sëriñ Tuubaa ja nag ko muy Serigne Saliou Mbacke sangam ba borom jàppandal ak njurul borom dookaa borom umul xuraa borom daaray ñaaro ki dimbali ndaw ñi dimbali ñu ndaw ñi ajjumay Serigne Saliou daayira yi day riir ñu naan lu xew kuy cant kuy jàng ñu ni sëriñ Serigne Saliou Mbacke la kooku moo dimbali sëriñ Mara Niass moo tax ñii mu bokkal métier mi kenn ku ci nekk boo tëddee guddi téye sa kurus di kàcc kaci sa xel bu demee ci sëñ Mara sëñ Mara Niass doo nelaw baati nag baati neen daa bokkul li nit ñi bëgg di ci xeexante di ci bañante di ci goddante moom la Serigne Mara def gratuit nee ma lan la xaalis. looloo dafa am ku ko wax dani ñii téye seen xaalis naan damay yóbbante paasi màggal nan def ni Serigne Mara Niass def live sa numéro mu wéef la direct fa nga toog so wote mu may la fukki junni legi fa nga tok ni la nak ba nopi jox la ak ñaan ni la defal li def li dem ci jamm ñew ci jamm kon seigne basirou Niass na nga xamni ni man Sada Niang la ma la waxon la dama engagé wax ko daam sa doomu ndey bi ci lan nek li ngay def dang ko man làmbutu woo ko barki demb bi nga dubai kaw tuut ma kaw tuut ma ma ma am problème ndax damaa defoon ne fa lay màggale. dafa dem jommal naari du bàyya ñu bëgg faa téye sëñ Mara waaye yéen waa du da ngeen a ñam rek waaye sëñ Mara Niass sëñ Mara Niassum sëñ Touba la daam. ak sa ak sa sëñ Assad ah macha allah kon émission bi moom tey spécial sëñ Mara la émission bi moom neex na trop trop trop kon xam naa ne eh, sëñ bi kon dañ koy yemale foofu ba beneen ginnaaw lu neex du doy su ëllëgee ñu ñëwaat yeneen yeneen ak yeneen ak yeneen ndax moom. maanaam liñ koy waxatee euh, gàmbug lem la maanaam heure boo ñemee rek bëgg a dolli. bëgg na maa ñëw ci kóllëre ak sëñ Mara benn. benn waaw waaw waaw incha allah bisimilah. kóllëre sëñ Mara. toppan gam toppan ca sunu diwriñ te muy sëñ Xaadim Guèye sëñ Mara Niass moo am kóllëre jànkati xasida yëpp dañoo bëgg sëñ Mara Niass waaye sëñ Mara Niass moo bëgg sëñ Xaadim Guèye sëñ Mara bu sëñ Xaadim Guèye de jàng du toog day taxaw. jël lam yor lépp jox ko ko ngir sëriñ Touba nit ñee ko yéem waaye sëñ Mara loolu yéemu ko ndax xool bi rëy na fit wi rëy na am na jom monsieur Koudou Boury dégg nay maamam gille ba muy dem day dañal waaye bi muy ñëw dañ koo sëf Mara Niass moom sëriñ Saliou ku ko amul ci réew dana ko wuti Mara Niass ci réew ku ko xamul dana ko bëgg a xam Mara Niass barke borom Touba mbacké ku djukki sang magal djag ki djagal ki djagal magali nak nag seigne Mara Niass sif ngay joxe Mara sifal nu ca ñaanal ñu salam jàmm daam wasalaamaaleykum wa rahmatullah Touba Média TV, la télévision dans les prochains jours. Des émissions, des interviews, des débats, des reportages, des éditions de journal pour vous informer. Touba Media TV, une télévision basée à Touba.